وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ أيوة كم نحن من جنون نلقي نكوان سيسون درسي نحن من جنون يوم باسي كما سيمون نيم نحن من جنون موي السكون سنيار درسي سيدنا عويف نيوان السكون ترى نحن نيو كتب نحن من جنون موي السكون ما هو دوبو نحن نيو moo tax tey ñu indi ay am ci la quran yi la lii nii baadul ayat min azikril hakim la yii yëpp ñu gis nii ay ayatul quran la pour ñu gis mawqif sukuun naka la fi nekkee ñu jàng ko suñ paree ñu dem xool boor beneen beneen bi nga xamante ne moom mooy as-sukuun si rasmul imlaa yi dégg waaye boor bii nii yi fi nekk yëpp dañ xam ne alquranul karim la moom moo nekk boor bi léegi li nga xamante ne moom la ñuy xool fii nii mooy sukuun li nga xamante ne noonu lañ ko dee maase ci Qur'an bi ak suñ bindee lu wala arabiya dafa xala uti dégg nga wax la woon exemple su nekkee ci Qur'an la daf dee mel ni comme dam comme yow la dee mel ni comme lii comme nii la dee mel comme nii la dafa utee li nga xamante ne moom mooy rasul imlaa moom dafa mel ni daal comme la comme zéro bu ndaw noonu la sukkum demee foofu waaye li nga xamante ne moo gën a yomb mooy ñu def ko nii na nga gis nag mu raaw su raaw nee nag ñu xam ne loolu lan la loolu sukkum la moo tax comme li nga xamante ne noonu lañ ko bindee fii na ak suñu bind loxo dañ koo jël bind ko mu raaw pour ñu mun a gën a leer lu ne lii sukkum dégg nga léegi si am si la bi nga xamante ne moom lañ njëkkee am fii si aaya dinañ gis am na fi damma sukuun fatha ak kas dégg léegi dañ koo ijit suñ paree ñu boole léegi comme ñu ngi doon jàng sukuun ak yeneen xarakaat yëpp si dars yi nga xamante ne ñoom ñoo jiitu bi yoon nag man du ma fi nekk di jàng yéen seen bopp yéen ay yéen ay jàng xanaa ma dimbale leen laalal leen ñi nga xamante ne moom mooy xarakay yéen seen bopp ngeen jàng aywa من شهد عليهم سمعهم وأبصارهم لقلي يعني ولا أبوي إيه. من منك شهد عليهم سمعهم وأبصارهم لقلين يعني لك أها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم أيوه دي نمسي بين أمسي سليمان إذ يحكمان في في إذ نفشت فيه غنم القوم دين أيوة وداود وسليمان إذ يحكمان القول غلبوا القول أيوه آه. ضيف إبراهيم المكرم حديث ضيف إبراهيم المكرم فشاربون فشاربون Russia. sam'uhum sam'uhum wa wa a a ab ab so so ru ru hu hu am am wa absaruhum wa absaruhum shahida alaihim shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum sam'uhum wa absaruhum ya ya a a la la يعلم يعلم ما ما ب ب أي أي ن ن ما بين ما بين أ أ أي أي دي دي دي أم أم أيديهم أيديهم و و ما ما خ خ ال ال ف ف ب أم وما خلفهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم و دا دا وو دا دا وداوود وداوود و و سو سو لا لا أي ما ما ن ن وسليمان وسليمان إ إ أذ أذ ي يا أح أح كو كو ما ما ني ني إذ يحكمان إذ يحكمان في في ال ال ح ح أر أر سي سي في الحرس في الحرس بن soo gisee ñu ne fil xarsi parce que wax nañ alif ak laam bi suñ ko waree jàng ñu xam ne xaraf bi nga xamante ne moom la àndal xuruuful qamari yi te xaaw xuruuful qamari yi moo i al na fa fa sha at iz nafasat iz nafasat fiihi fiihi wanamu wanamu ن ن م ظلم ظلم ال ال أو أو م م القوم القوم وداوود وسليمان وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم

ñu ngay jàng nii léegi dafa am alif ak laam amul ak alif ak laam pour wax hadiisu dayf hadiisu dayf hadiisu dayfi Ibrahima al mukramin fa شاربون وشاربون وشاربون عقل أي أي عليه عليه من من نا مي ال ح مي مي من الحميم من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون ري بو فشاربون فشاربون شو شرب أرب أرب شرب شرب ال الهيم الهيم الهيم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم جامد خمسة لا تدرين كل جامد يا الحمد لله ولا بنتي أمر على Ага. Шаг. Шаг. Wow. nii nii li nga xamante ne moom lañ ko am si am si la daanaka wax bi benn wax bi la si li nga xamante ne moom mooy arkaanul islam wax lii yëpp si la aj dégg nga arkaanul islam yëpp la boole daf ko muy nas biim dégg nga lii dañuy jàng sukkoon si li nga xamante ne moom mooy rasmul imla yi léegi nag du jar ñu ko jàng pour nga xam ne fene seen si la ñuy def ixtibaar ñenn si yéen kenn ku nekk ñu am juróomi nit yoo xamante ne kenn ku nekk dafa nekk jàng nañu benn sax ah aywa 頑張りに行けなしいです。 عند أوقاتها أقمنا صلاتنا أقمنا صلاتنا ne lan mooy loolu mooy mu ne aqam na taxawal nañ solaatana suñu julli inda awqaatiha si waxtoon yi taxaw nañ taxawal nañ suñu julli si waxtoon léegi ñu dem si assaani ah aje? Aje. Na. Na. Nah. Akhrajna. Akhrajna. Za. Za. Ta. Ka. Ta. Nah. Ta. Zakata. Zakata. A. A. Am. Am. Wa. Wa. Li. Li. Na. Na. Amwalina. Amwalina. Bi. Bi. Ri. Ri. Bo. Bo. Biri. Bo. Biri. Do. A. na أنفسنا أنفسنا أخرجنا أخرجنا زكاة أموالنا زكاة أموالنا برضا أنفسنا برضا أنفسنا في واني سجلي في نميان وصلا أزك جيني أزك من أخرجنا جينينا زكاة من أزك أموالنا سن ألم برضا سنجرمال أنفسنا سنبوك wax na julli lay wax na li nga xamante ne mooy itaaw yi rek day mbiram si nuqa saay So, so, and um, ñu ko waxee ne wax nañ si julli wax nañ si azaka fii dafa ñëw wax si li nga lan su su am am sumna sumna ra ra ma ma boo na na ramadona ramadona fasomat fasomat ya ya ya, wa, ri ri tu tu na na jawarihuna jawarihuna صمنا رمضان صمنا رمضان فصامت جوارحنا فصامت جوارحنا من صمنا أرنا رمضان ويركو فصامت مؤر جوارحنا سنتشر ويركو بليك المنو boo ooree du lekk ak naan rek moo tax ñu ne sa bët dafa awa sa nopp yi dañuy awa sa loxo yi sa tànk yi sa dafa awa Buat mu dafa soobet yow arrivé comme Boniface yëpp ñu naan ya a léegi ñu dem si li nga xamante am am wa wa li li na na am wa li na am wa li na حججنا حججنا ك ك أ ب ب ت ت ن ن كعبتنا كعبتنا بحلال بحلال ام أم أم و و لي أموالنا أموالنا حججنا كعبتنا حججنا كعبتنا بحلال أموالنا بحلال wa amina. fii nii si li nga xamante ne moom la ma wax mooy xaj aji màkk mu ne xajaj naa aji nañ kaabatana suñ kaaba bi xalaali si lu dagan amwaalina suñ alal ngay dem aji alal bu nga xamante ne alal bu leew la alal bu dagan la ñu ngay demee dégg nga léegi dem si li nga xamante ne mooy la a a kamulat a a a la da sya

إي إي إيه. أس أس لا لا مي مي نا نا إسلامنا إسلامنا ب ب أ أ آه. آه. د د بعدك بعدك ش ش ها ها د د ت ت نا نا شهادتنا شهادتنا كملت كملت أركان إسلامنا أركان الإسلام baada shahadatina baada shahadatina léegi mu ne kamulat mut na arkaanu islamina ponki suñu islam parce que ponki islam juróom yëpp wax nañ parce que wax nañ julli wax nañ azaka wax nañ or wax nañ aji léegi mu ne nag baada shahadatina gannaaw si ñaari seede nga xamante ne teg nañ si ñaari seede mu daal di nekk juróomi arkaanu islam yëpp السلام عليكم تاي دارتو تاي بيني في لانكو امالي مانا ميغا خامتو مون نيو جانو سي سكول ييب سي قران اك سي املاي لير الحمد لله رب العالمين وقت ميغا خامتو يين لانكو اندال سي دارتو ميغا خامتو مون مو باسي ديغ موي اسكولي تاي نيو كورون تيج mom ñu ci doon jàng fi la jëne waaye li nga xamante ne moom mooy si kanam ba tey nañ fa continuer di gis li nga xamante ne moom mooy xarakaat yëpp moo tax léegi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 الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان